internet solution TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jaajëfal ah, ci ni ngeen ñu toppee chaque fois rek ci suñu ay ah, programme ñu leen daal di dégtal lépp loo a ah, ba tax na ndiki ndiki ndiki démb daal di koy wane ndax génn bi nga xam ne génn nañ ko rek dem ca bureau de vote sotti ngir rek daal di uh, tànn ki nga xam ne rek moom la ñu bëgg ngir mu jiite li nga xam ne moom mooy uh, réewum Sénégal boobu li uh, génn bi nga xam ne rek génn nañ ko moo waral ndiki euh, démb euh, ñu daal di euh, jot tendance yi nga xam ne rek ba ci ndiki tay sax jot nañu tendance yi nga xam ne rek moom moo daal di place yi Bassirou Diomaye Faye nekk ca kanam te li ni nag nekk ab mbir mu am solo nax pour la première fois rek ginnaaw nag maître Abdoulaye Wade ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall Abdou Diouf ak li ni mel ñoom nag second tour lañ doon dem waaye nag élection yi la ñu daal di nemmeeku premier tour rek ñu daal di xam ki nga xam ne rek moom moo nar a wuutu wala moom moo nara euh, wuutu ki nga xam ne rek moom mooy euh, président euh, Macky Sall yooyu li tendance nag dafa daal di jiital Bassirou Diomaye fay nekk ca kanam ki nga xam ne rek moom mooy Amadou Ba daal di ci toftal yeneen candidat yi nag daal di nekk ca ginnaaw ba tax na yooyu li chiffre nag ki nga xam ne rek moom moo ko daal di génne muy statisticien bi lay di Alphonse Thiakane foofu noonu ca RFM nag la daal di génne yooyu li chiffre di xamle que ne Bassirou Diomaye Faye euh, mi bokk ci coalition euh, Diomaye euh, président moom nag moo daal di jiitu avec cinquante sept virgule quatre pour cent ci les élections Ba bokk ca coalition Benno Bokk Yaakaar moom nag moo ca daal di topp avec trente et un pour cent yeneen candidat yi nag ci mel ni Khalifa Ababacar Sall ndewlu ca trois virgule huit pour cent Aliou Mamadou Dia bu PUR pour cent Aly Ngouille Ndiaye cent Idrissa Seck borom Thiès moom nag un pour cent rek la daal di am yeneen candidat yi nag daal di ci Euh, topp mu nekk nag ay chiffres yoo xam ne rek Alphonse Thiakane moo ko daal di génne yeneen chiffres yi nga xam ne rek la professeur de statique statistique euh, Mamadou yokk nekk ca université Québec Montréal euh, moom nag daal nay génne chiffre di xam lekk ne kat 90 pour cent ci centre témoin fii ci réewum Sénégal ak foofu noono ca diaspora maanaam daal ba mu ko xaymawee gis na nekk ne bassiro Bassirou Diomaye fay am na 58 virgule 7 pour cent ci ay voix ki nga xam ne rek moom mooy Amadou Ba am ci 33 euh, virgule 97 pour cent ci wàllum euh, voix mu nekk nag mbir yi nga xam ne rek ñoom ñoo ko daal di génnee li ni mel nag daal di euh, firndeel que ne kat ci première tendance yi nga xam ne rek moom moo daal di wàcc que ne kat Basirou Diomaye Faye mën naa ne moo nekk ca kanam moo naa ne moom tamit moo gën a jege li nga xam ne rek moom mooy photo yu président boobilee ba tax na ki nga xam ne rek moom mooy le journaliste Madiambal Diagne moom i tamit daal dinay génn daal di xam li ab information boo xam ne nee na kat fa mu ko jëlee ca suuf su euh, fiable la ko daal di jëlee nekk ja foofu noonu euh, ca biir euh, gouvernement boobi lii moom nag Madiambal Diagne ma ngay xamle que ne kat Amadou Ba jamono ji bëgg-bëggam lenn kese la daal di woo ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye way nag daal di nangu défaite bi nga xam ne rek am na ko ndiki démb waaye tamit félicité ko ci bi nga xam ne rek moom Diomaye am na ko ci premier tour yi na boobi appel nag moom Madiambal Diagne nee na bu confirmé maanaam bu amee dina nekk ab mbir moo xam ne dina nekk lu njëkk euh, ci soiru euh, Sénégal maanaam daal am ab opposition euh, daal di gagné li nga xam ne rek moom mooy élection yi dès les premiers tours li ni mel nag nekk na loo xam ne moom kat nee na lu njëkk la ci réewum Sénégal te li kay gën a firndeel rek mooy que Amadou Ba woo ki nga xam ne rek moom mooy Bassirou Diomaye Faye daal di koy félicité ba tax na moom sax mi ngi xam le que ne kat réewum Sénégal ñaari changement yi nga xam ne 2000 moom Abdoulaye Wade ki nga xam ne rek moom mooy Abdou Diouf second tour la ñu daal di dem waaye tamit prison Macky Sall ak Abdoulaye Wade sax mën naa ne euh, deuxième tour aussi la ñu daal dem maanaam daal ci lu njëkk ci histoire politique wu Sénégal ab opposant daal di euh, dóor ki nga xam ne moo nekk pouvoir ca premier tour te li ni mel nag li koy gën a wala li ko gën a euh, may Bassirou Diomaye fay moom i li mooy askanu Sénégal génn bi nga xam ne génn nañ ko daal di dem voté ji buñ fa jógee ba léegi ci mbirum élection yi la ñuy daal di euh, desen yi ndax maa ngi koy wax ba léegi rek moom Amadou Ba félicité gul euh, ki nga xam ni moom mooy euh, Bassirou Diomaye Faye Bassirou nag daal dinay génn yëkkati ay kaddu daal di koy jaarale ci Moustapha Bamba Guirassi ginnaaw rek ba ki nga xam ne rek moom mooy Amadou Ba daal di reporté li nga xam ne rek moom mooy déclaration ba tax na réponse bi nga xam ne moom Bassirou Diomaye Faye daal dina koy apporter nee na kat moom xaarul benn yoon ki nga xam ne rek moom mooy Amadou Ba daal di koy félicité maanaam daal xaarul benn yoon Euh, félicitation ci euh, paro ki nga xam ne rek moom mooy euh, Amadou Ba waaye tamit ma ngay daal di euh, souligner respect bi nga xam ne rek euh, am na ko suñu wàllu institution maanaam daal li nga xam ne rek moom mooy suñu wàllu charte réew tamit la nga xam ne rek moom Bassirou Diène daal dina koy respecté bu baax a baax a ba et it tamit jamono ji rek moom mi ngi xaar résultat final maanaam daal annonce officielle bi nga xam ne ñu ko daal def ci résultat yi di wane que ne kat ana kan moom moo nekk le cinquième président du Sénégal li di xaar et que li ni mel lay daal di a jëmee li ni mel waaye daal jamono ci lañ ca mën a jàpp rek mooy que tendance bi dafa daal di wane que ne kat Bassirou Diomaye Faye moo daal di remporté euh, yooyu les élections ginnaaw sax euh, ba yooyu les tendance daal di wàccee nemmeeku nañ ne ay euh, candidat commencé nañoo génn daal di félicité ki nga xam ne rek moom mooy Bassirou Diomaye Faye ki ci mel ne Pape Djibril Fall ki ci mel ni tamit Anta Babacar Ngom moom itamit daal di lay félicité Bassirou Diomaye Faye mu candidat yi daal mën naa ne Khalifa Ababacar Sall sax génn na félicité ko ki nga xam ne aussi moom mooy Karim Wade nekk foofu noonu ca Qatar li ni mel aussi la daal di def Barthélémy Diaz aussi yi euh, félicité ki nga xam ne rek moom mooy bat ki moom mooy euh, Diomaye Faye Doudou Ka aussi euh, def na ni ni mel maanaam daal candidat yi euh, ba ci ki nga xam ne mooy Boubacar kamara sax moom mën naan def ko daal di yéex def waaye nag félicité na ki nga xam ne rek moom mooy Diomaye fay Idi ak amadu Ba ñoom ñaar dong rek ñoo desagum pour le moment ngir félicité ki nga xam ne rek moom mooy Bassirou Mile ba tax na li ni mel aussi moo daal di moo daal di may ki nga xam ne rek moom mooy a Sénat moom itamit daal di génn rek ca silence am daal di addum ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy euh, candidat yi parce que moom Sénat ma ngay dànkaafu bu baax a baax euh, candidat yi ndax moom mi ngi xamle que ne kat moom la commission électorale national autonome que ne kat amul kenn koo xam ne rek am na droit daal di génn euh, joxe li nga xam ne mooy résultat maanaam daal di wax kii moo gañe wala ke moo gañe xam naa ne sans doute félicitation yooyu lee moo waral rek mu daal di génn ndax nee na yooyu les proclamation ci wàllum résultat yooyu lee dafa am bànqaas boo xam ne rek moom lañ ko daal di jagleel moom moo war a mën a génn daal di wax li nga xam ne rek moom mooy euh, résultat yi waaye tamit euh, ca boobu li euh, communiqué ma ngay félicité waat bu baax a baax waaye tamit di am contentement bu baax a baax ci élection présidentielle yi na mu daal l' ensemble du territoire national ba ca étranger tamit ba ca maanaam à l' extérieur moom nag Sénat ma ngay félicité waat bu baax a baax que ne kat mbir ci jàmm ak salaam la daal di am gis gis nañ ne ginnaaw ba ñu ubbi li nga xam ne rek moom mooy bureau de vote yi ba niñ a tëjee citoyen yi maanaam sénégalais yi dem nañ daal def. def la nga xam ne euh, moom moo leen daal di euh, war waaye nag lépp rek ci jàmm ak salaam lañ ko daal defee daal di wane ab comportement boo xam ne comportement exemplaire la maanaam daal ci gàttal moom Sénat am na mbégte bu ba a baax ma ngay rendre hommage nag ñi nga xam ne rek euh, ñoom ñooy suñu ay euh, force de l'ordre ca euh, liggéey bu am solo bi nga xam ne rek daal dinañ koy def ndax nee na ca lieu de vote boo dem rek mën naa ni force de l'ordre yi daal dinañuy taxawaa temb rek ngir daal di aar foofu lee waaye tamit ma ngay rendre hommage ba léegi rek candidat yi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ca yile jongante ak la nga xam ne rek daal dinañ koy wane ba seen ba tamit seen ay mandataire aussi daal dinañ koy wane eh benn esprit démocratique la ñu daal di nemmeeku ca ñoom li ni mel nag yàlla si na daal di ginnaaw rek ba résultat yi commencé euh, wàcce euh, benn yoon wala ginnaaw euh, ba tendance yi commencé génn moo waral nag ki nga xam ne rek moom mooy l'ex a Dieye moom itamit ma ngay woo sénégalais ngir rek ñu daal di accepter résultat yi nga xam ne rek génn na mu favorable loolu ki nga xam ne rek moom mooy Bassirou Diomaye Faye ma ngay xamle moom l'ex capitaine Dieye ma ngay xamle que ne kat démocratie Sénégal dafa daal di suqalikuwaat maanaam daal moom mbégte la en ci démocratie bi nga xam ne rek Sénégal euh, daf koo daf koo yàggoon euh, am ba léegi mu doon li nga xam ne rek moom mooy ab vitrine euh, jamono ji nag suñ ko nemmeekuwaatee moom nag mbégte la ci daal di am bu baax a baax ma ngay woon ak sénégalais yi ak fu ñu munti nekk ak fu ñu munti bokk rek ngir ñu daal di accepter résultat yi nga xam ne rek ñoom ñoo génn ca urne ba daal di féliciter euh, ki nga xam ne rek moom mooy Bassirou Diomaye fay nekk président bu yees euh, fii ci réewum euh, Sénégal yi la kàddu nag la leader du parti ma réew daal di yëkkati ginnaaw rek ba résultat yi wala ginnaaw ba première tendance yi daal di wàccee fii la ñuy daal di wàccee suñu a ci kanam tuuti ak yeneen i information waaye naka bu leen fàtte chaque rek di abone ngir ngeen mën a am information yu wóor leer